ndax gis nga bataaxel bii li ma tax a dem ci àll bi bataaxel bii la baay bi ne ko lu nekk ci bataaxel bi mu daal di koy jox leetar bi moom la ñuy wax bataaxel gone yi leetar bi ngeen ko déggee moo di bataaxel dégg ngeen maanaam bët ak xel koy jàng ndax lu tax ba gis mbind mi waaye xele xam mbind mi wolof tuddi ko bataaxel xam nga foofu nag naa fi taxaw tuuti leer la leen xam ngeen lu waral wolof li wax bët bët xam ngeen. kan hmm? mooy bët lu tax mu tudd bët hmm? xool bët ma la leen li tax wala tudde ko bët naa leen wax bët ak nopp ak kawar bu ëllëgee ma ñëw yéen ci leen du dëgg bët mooy bëttukaay lu munta bët lu bëttul lu ne bët munu ci dara bëtukaay la ñu tudde ko lii de bëttukaay ñu ne bët la xam nga wolof ñaare dafa xaw a mel ni lu xaw a tàyyal gis nga euh, am Muhammadu sax bu yàgg ñu wooy ko muudu maanaam maanaam dañu dañoo tàmm gàttal awu yoon ci ko def dañuy fital mbaa ñu wet a ñaam maanaam daal wolof mel noonu léegi nag bët bëttukaay la la xam ne kon li mën a bët lu bëttul lu ne fi ne miir bii bu ñu ko defee nii ab miir su ngeen xoolee la ca gannaaw miir ba su amul su miir bi amul bën bën kenn du ko gis la ca gannaawam waaye su amee rek bët jaar na foofa bët seen la ci gannaawam man tuddi ko bëttukaay leer na euh, nopp dañu ne da war na àgg ci nit li nga koy wax nga laal ko mu xool la nga joxoñ ko loola ñu ne ah, bu nopp yi baaxee nag ñu ne ah, kon koy noppale na ah, kon nopp ndeke dafa noppale dafa noppale <laughs> noppale na mu ngoog ndax dool dem laal nit ki di ko laal di ko joxoñ loola ko dafa noppale voilà ñu ne nopp noppale lu noppale gi nii da ngay taxaw rek wax mu daal di mu daal koy dégg daal di <laughs> daal xam lu dëgg loolu mooy noppale kawar nag kaware day féete kaw xam nga kawar dara féete kaw xool ngeen seen ko kaw moom rek mooy féete kaw <laughs> kay war rek day war rek day war ko war <laughs> ah? loolu mooy kawar ah? dafay baax ci ñuy xam yenn baat yi wala ngeen di ko xam ci bi ngeen nekkee ndaw xam nga da ngay dégg parce que damaa dégg sax ci benn philosophe philosophe xam nga philosophe mooy koo xam ne mën naa waxtaan ba asamaan set du tudd alxuraan du tudd addis te li muy wax boo demee ci alxuraan fekk ko ci boo demee ci addis ko ci juróom lay doon mais dafa am benn genn génn góor bu doon yar doomam di ko duma naan ko xale du fen waaw lu xale du fen xale bi jooy daw ba ci el sama dikk ko waa bàyyi kon ñaata at laa war a am nag ban tàmbalee fen wax na dëgg de <laughs> nga daan ko xale du fen xam naa fen am na ko nag kenn ko war a def du dëgg mu ngo loolu dafa yëpp ay waxin la yoo xam ne il faut ngeen xam ko euh, léeg ngay dégg fi nekk nii wax yi xaw a doy waar waaw wala fi njóobeen ñoom doy nañu waar nekk mu daal mu daal mu ngoog léegi nag nga gis ne euh, bi mu ko joxee lettre bi moom baay bi baay bi daal di xool lettre bi daal di koy jàng mu ne ko baay bataaxel bi moo tax bi ma xamee li ci nekk mënatumaa dékku gan ñi war a ñëw ndax bàyyi gan ñi dañ maa joxoon seeni doom ci ngor ak yaakaar yaakaar ji mooy lan gis ma fa dëkk ba ma defal fa lu mat juróom-ñaari fan ca penc ma di jàpp di julli loolu laa fa nekkee ba bisub keroog xaw ma woon dëkk ba ban dëkk la ñoom bi ñu dikkee lañ ma ne fii moo di guta li la fi dugal génnewu la fi ma xam guta ci lañ ma waxee it na ma dañu la bëgg na xamal lenn ndegam bëgg nga fee génn ci dëkk bi nu génne la ñun ñii kenn ku ne am nga doom muy doom bu jigéen mat naa dem kër dañ la ko bëgg a may jox la yóbbal te it duñ daal di topp ci yow ndax kon ndox mi dañ lay sas nga ganale nu waaye dañ la koy jox nga dem ñu laaj sa adresse saa yoo demee ba mu yàgg nag danañu ñëw seet su néegi doom ndax deret dafa foor kon bàyyi ñooñu bu ñu defee la ñu waxoon. ma ànd ak ñooñu ñëw yore leen keroog ba ma agsee nga ma wax ne ma naa leen bàyyi te yor ci kenn ba loola jaaxal ma ñaari fan ba ñetti fan nga ne ma su loolu mënta am yow bàyyi nga génn dëkk bi di kàmbaar ndax duñ bokk dëkk bi loolu nekk lu ma tiis ndax xalaatuma mukk nga jur ma di sama baay jigéen tax ngay génn loola moom dee wuti ko sax ma ko gënal ma doon lijjanti nag kon lu ma leen wutalee paas bu ma leen yóbboo gudda ga ma leen jëlee woon ah da léeb ah jabal may lijjanti nag di wuti yàlla men daf ma nattu ci wuti bi masayer sama xarit la ñoo bokk mu gudd ci laa jëkk a dem mu jox ma ñeen fukki junni ñeen fukki junni yi dem ma jóge ci dem seet sama bàjjan ca cambu leex mu jox ma juróom benn fukki junni ma ne ndax yàlla kuréel la ñeen fukk am juróom benn fukk war a samp juróom benn fukk ya dem ma jóge fa ngeen naab ma tëpp tëppal ma ba sama xel dellu siwaat ma dem sama nijaay sama nijaay yëkkati téeméeri junni jox ma ma téeméer junni ci koo xam ne yow ñaar junni képp jagal na saw xew ñu jox la téeméer junni ma yaakaar ne man sama àdduna baax na àdduna ak àllaaxira yéen seen àdduna baax na àdduna ak àllaaxira ndax téeméer junni kon su ma ñëwee ba ci yoon wi timis dab ma may julli timis mbuus gi ma defoon téeméer junni yi ma rubbi ko teg ci wet gi ndax loolu lépp la ma ci jublu woon mooy bëggumaa ñëw ba ci kër gi nuyoo bi ak jàmm sant bi tax muxtaarum timis mi di ma raw te bàyyi da maa dénk ne ma bu ma faat waxtu li ma nekk ci àll bi lépp li mu doon metti métti lépp musuma faat waxtu ma ne na kon timis jot na naa julli ma ruggi nag mbuus gi ruggi xam ngeen ruggi ni mu ko rongoo woon nii mu dindi ko ah xam ko ah waaw bu ma noo sant ah waaw kon koo xam wax dëgg yàlla te wax dëgg sama doom ba sama set waaye nag teewul ndox naa la de moom hmm? nam nga ma ba yaay ma moo ko waxoon ne seen a ñoo leen di yeb nag bu leen nobante de dégg li ma leen wax yem ci léeb ak rek léegi nag mu ruggi mbuus gi teg ko ci wet gi nee na may julli julli benn rakk. ba sëgg fi may siggee ndekete am na genn till goo xam ne benn dana da koo fetal bal ba mooy till ga tiit jaar fa nag roogoo mbuus ga ndeyam téye gémmiñam baay bi téye gémmiñam mu ne ko nag ba till till ga roogoo mbuus ba laa topp till gi nag ci timis gi maag till gi ci timis gi maag till gi maag till gi xam nga till timis nag lu mu gën a guddi mu gën laa réer mujj yàgg gisatuma sax garab yi waxuma laa till gi may def nag saa yu ma xëyee di wër ci àll bi ay till di xool gisuma ba def ko lu mat ñetti fan ba ñeenti fan coono boobu nag jàpp ma ak xiif bi ak mar wi tax na àttanatuma sama bopp dàll yi ma soloon sax gis nga ko mënatuma sol ay dàll amatuma fu ma tëdd gis nga mbub mi ni meloon ci suuf laa doon tëdd mbub mi ma tëdd nag ca garab ga di xalaat waaye lii moo ma taxoon ma nekkoon ci àll ba di xalaat bëggoon na xaar ba yàlla fekk ma rey ma far benn ma nopp bi ma bi ngeen ma jëlsee ngeen wax ak man jox ma ma lekk jox ma ma naan ngeen wax ba sama xel dellu si ma toog fu ma toog di xalaat lettre bi dikkal ma samay gor na ma dañ fay ñëw te wóor na ma ne balaa ay bis ñëw tey tey tey bu ñu dikkoon du ñu añ du am sax man mbubb ma sol ba man leen a teeru ñii ñu ma joxoon kasaali benn kumba la ñu am ku ciy génn jox ko sa morom bàyyi lii neexut ci xol tama di as gor di as gor di ku ñu xam dëkk ci dëkk bi sama gàcce naroo weeru ba samay moroom yàpp ma lii moo taxoon ma teg ñaañal bëgg dem yeew ak buum sama sama baat xaru dee benn nopp ndey jeeg baay bi nag ne dënn xalaat xalaatub ah xaru day dara da ko dul jar waaye li nga wax day gàcce la goo xam ne xamuñu fu nu jëm yaay ji ne ah, li nga wax de suñu gàcce la ndax yow li la war def nga ko moo yàgg ngaa wut waaye nag am yàllaa yor waaye nag li ma ci xam te mu wér ma moo di li ma bëggoon mooy lu metti metti metti metti metti nga gëm ne yàlla mooy joxe te kum jox nga am waaye yàlla mooy xañe te kum xañ nga ñàkk baay bi ne ko euh, ndogal mu ne ko naam baay mu ne ko li nga wax dëgg la gàcce la doy na gàcce waaye nag xam nga lu ma soxla mu ne ko déedéet baay su asamaan setee soo xëyee na nga daan def nga defati ko ndax ku xam fu am nekk boo jógee fa ngay jawale yow li la war mooy wut ndogal na gees baay mu ne ko baay man ma génn te kër gi damay wuti mu ne ko waawaaw dogal na xool baayam bët yoo xam ne mosu koo xool dafa na siggin jàkk na xool ko xool bu baax nag xool nag su ma doon weddi waxee baayam car la ko naan bàyyi dootuma génn ci kër gi waaye xolub njureel ba daal di daw yaayam na ko jógal def la sa baay wax jógal def ca néeg ba noppalu bu subaa nga xëyaat ndogal daal di jóg jiit léegi yaay ji ndogal dugg ca néeg ba daal di koy toppatoo jox ko mu lekk ak naan ndogal fanaan asamaan set yaayam daal di koy fëgg mu njëkk ubbi bunt bi mu ne ko sa baay am na lu mu la waxoon démb jugal nga jëfe ko jógal mu ne am sa baay ma nga néega mu ne sa baay ngi ci ëtt xam na ne dama ko génnal mu daldi génn ne ma ngay dem nag wuti gi yoon nag xamut fu mu jëm du xarit du mbokk du jege ñaale du kenn naka la génn daal di romb baayam ci ëtt fi ñuy daal di koy nuyu ne ko maa ngi dem baayam ne ko waaw ma mu dem baay bi di ko xool ba yàgg mu woo mu dëppaat mu ne ko yeggal suuf mu yegg suuf mu ne ko dama laa bëgg a dénk na tey damaa bëgg ñetti kàddu yi ma lay wax na ko bàyyee xel nii ma la koy wax mu ne ko baax na baay mu ne ko bi jëkk mooy lépp loo dajeel ak lu mën a doon na nga ko wan dogal xool baayam baay bi ne ko dama ne boo jógee di dem loo jëkk a dajal ko wan mu ne ko waaw baay kon maa ngi dem mu dem mu ne ko kaay mu dikk mu ne ko ñaari bi xam nga lum mu ne ko déedéet baay mu ne ko loo ci diggu yoon bi na ko suul soo dee dem loo gis ci diggu yoon mu galan na ko suul wàcc ko fa dem mu ne ko waaw baay na ñokket bëgg de mu dina ko waxaat mu dikk mu ne ko ndogal mu ne ko naam baay mu ne ko kaay mu ne ko xam nga ñetteel bee mu ne ko déedéet baay mu ne ko lu waay gën a bëgg lu dul yàlla bàyyee ko ko lu la waay gën a tee lu dul yàlla bàyyi ko ko bàyyee mu ne ko baax na baay ndogal tàggoog baayam baayam wéy ca ga di yaayam ma nga taxawoon ci buntu néeg ba déglu waxtaan ndogal ak baayam ndogal dem na ndogal dem di dem ba yàgg mu daje ak ngelaw loo xam ne da koo séen muy ñëw ànd ak poussière bu bari ndogal xool fan lay làqatu gisul genn garab gu muy làqatu xelam na yar ci baayam noonu na ko woon loo jëkk a dajeel na nga ko won mu ne ah waaw man ngelaw de laa jëkk dajal ngelaw lu jàpp kaw jàpp suuf daal ni waa léegi nu may def te sama baay day lu ma masaa wax jéem naa ko lu ma digal def naa kon léegi xaaral naa ŋa mënu maa wan na ngelaw li waaye su ma ŋaayee ngelaw dugg sama biir gémmiñ lu ma ci ñepp baax na mu daal di ŋa ngelaw liy dugg ci biir gémmiñam di sooy dugg di suy dugg ba mu jeex tàkk mu def tàngal ci biir bi ngelaw li soppi ko tàngal nekk ci biir bi ndogal di màcc continuer dox ab diir mu gis wenn yetu or or nag xam ngeen ne lu tuuti li képp ay million la mu yet nag gis ci nag aw yet wéetal ci digg yoon bi ndogal ne a daal di ko yëkkati xool ko xool ko ne lii de or la <laughs> man de sama ñàkk jeex na lii de kon ma sama baay di ma ko wax waaye kat baay dana ma lu ma jëkk a yem naa ko suul ah lii nu ma koy suule or daal ne ah dee wallaay sama lu ma waxati lu ma digal rek naa ko def lu métti métti naa ko gas suul bëgg naa or loolu bëgg naa xaalis waaye naa ko gas suul daal di gas ba mu xóot mu jël yet bi def ci biir daal di koy suul ba maase dox ñaar tànk geesuwaat ko seen yet bi nekk ci kaw mu ne ah dëppaat gasaat ko defaat ci biir suul ko maasale doxaat ñetti tànk geesuwaat gis yet nekk ci kaw mu def ko ñetti yoon ñeenti yoon juróomi ba ko juróom-ñaari yoon mënut te fexe ba suul yet wi génn dem yet wi nekk suuf mu ne xaaral yet wi dafay tardé naa ko fi bàyyi daal di continuer di dem nis tuuti mu daal di fekk wenn genn ak weñ gu xomaak gu ñuul weñ gu ñuul mu ne ah xaaral ma ko yet wi daal di jël na yetu weñ ne naa koy ŋàbbu ndax lu bon bon ma xam ne sax am naa yetu weñ di dox nag ba ci diggante ñaari yoon muy nattable ndeyjoor lay am lay aw wala càmmoñ lay aw dajeeg benn waay mën naa ne ak góor la sax ndax moo ko mag mu nuyoog moom góor gi ne ko waaw man de damaa soxla woon weñ gii ne ko ah weñ gi day dama koo for mu ne ko ah man soxla naa ko naa ko loolu wax dëgg yàlla ndogal ne ko ah bëgg ko daa ah, man wax dëgg yàlla may te moom dong laa yor mu ne ko ah bëgg naa ko de ndogal ne waa du ma la jox wen gi waa ne ko baax na en tout cas bëgg naa ko waa ji dem ndogal dem ba yàgg ndogal xelam na yar ci la ko bàyyam waxoon lu la waay gën a téye bëgg jox ko ndogal daal di wëlbatiku daal di ëyu waa ji mu dëpp mu ne ko da ngaa bëgg wen mu ne ko waa ji maa la gën a bëgg wen gi far na kon la bàyyam waxoon am na lu la waay gën a jox ko te nee na ko maa la gën a bëgg wen mu ne ko weñ gu ñuul gu xonq yi tekkiwul dara am mu jox weñ ndogal daal di wal wëlbatiku nag ñibbis baay bi ne ko ndogal ñëw nga mu ne ko baay ñëw naa mu ne ko na def nag mu ne ko ah indiwuma dara de waaye nag lan moo xam ne gis naa ko ñett yi xam def naa ko mu ne ko lan mu ne ko la ma jëkk yam ngelaw lu bari la xaw ma nu may def te yaa moo xam ne man lu ma jëkk gis naa ko wan na ba ma nga xamee nag ngelaw li daa dugg sama biir gémmiñ di seey ba yàgg mu nekk ab tàngal mu ne ko ndogal loolu mooy ndigal lu mu réeréy jëfeel bànneex a cay mujj loo ca teg mu ne ko bàyyi la ma ci teg nag moom moo ma xaw a metti ndax maa ngi ni indiwu ma dara abañ sax indiwu ma ko te yetu or laa gisoon ci àll bi woo xam ne su ma ko doon jaay te mën naa ci ay ñaari million ñetti million waaye yaa moo xam ne man lu ma gis naa gas suul su ma gasee ba suul su ma doxee tuuti mu sulee ko waat ma gasaat suulaat mu sulee ko waat mu mujj bàyyi ko mu ne ko jëf ju baax a ngoogu kenn mënu suul jëf ju baax a noonu saa yoo ko suulee mu loo ci tegaat mu ne ko la ma tekkay bàyyi moom doy na war ak weñ daal laa mujj far gu xomaak waaye am ku ma ñaan ne ma may ma weñ mu ne ko danga ko soxla mu ne maa la gën a soxla nunu mu ko a jox sax waaye yaa ma waxoon ma lu ma ku ma gisati lu mu gën a soxla lu yàlla naa ko bàyyee ma jox ko weñ baay bi ne ko waa ne nañ des yàlla jógal yegg ci biir nañ yàlla baat boobu la baayam wax ndogal ci weñ gu ñuul ki nga xam ne moo ñaan ndogal weñ gi ne ko may ma ko nag mool la mool bi gaalam dafa toj xar dafa war a xëy nappi te li muy xëy di nappi dañ ko ko xamleel ñu bari moo leen di fournir jën yàlla dogal na nag mu doon wut nag weñ ko mën a daaxee gaal gi fatte ko bën bën boobu ba ndox ci mën a dugg nga xam ngeen ne gaal su amee bën bën bu demee ci biir géej day diig moo tax bën bën bu mu am borom da koy fatt léegi nag mu ne ndogal sama gaal dafa bënnoon ma bëggoon lu ma ko daaxe moo tax ma ne la weñ gi maa la ko gën a bëgg ndogal ne ko kon nag ma it jox naa la ko ndax sama baay dafa ma waxoon ne lu ma yorati su ma ko nit gënee bëgg lu dul yàlla naa ko ko jox mu ne ko baax na foo dëkk mu ne ko dëkk bii ngay seen muy kàmbaar mu ne ko bu yàlla dogalee de ma nappi te nga xam ne yàlla dogal na géej gi kaayewut dinaa la may ndawal xam ngeen kaaye géej gu kaaye kenn ku nekk jigéen ñi da koy laaj yaayam yéen ñi nga xam ne seen yaay yi su fajaree ñu wuti jën ku ci wut jën amul na xam ne géej gaa kaayee maanaam géej gi moo génnewul jën dafa jamono yoo xam ne géej gi warkala jën dañuy bari lool te géej sax di jéem a féey <laughs> du dëgg géej gi moom jën waxaale wuñ ko su jën du am moo tax mol bi te mooy nappkat bi ne su yàlla dogalee géej gi kaayewul day dinaa la may ndawal ndogal ne ko baax mu nett loolu baayam baayam ni ko yàlla baax na ñu tëdd mu am nag kooka nga xam ne moom la mayoon weñ nga daal di ŋàpp nag aw jën fëgg nag permis ndogal wuyu ne ko kooku mu ne ko man la mu ne ko yow ma mu ne ko mën a nappkat bi nga am sa weñ gi dama laa soxla comme noonu na ko su ma naa dinaa la may jën mu daal di jóg ubbi bi mu ubbee néeg bi ñoo fekk mu taxaw ci buntu néeg bi mu jox ko jën wi ne ko dafa dogal géej dafa xaw a kaaya jën bëriwul waaye nag dana waxoon naa la ko te liggéey bor te xam naa ne yaa ngi may bàyyi xel moo tax ma ne lu mu guddi guddi maa ngi soog a teer si nii sax moo tax ma indi la jën ndogal na ko jërëjëf mu ne ko ki ma mayoon sama wen gi di daf maa may si aw jën léegi te xam ne boo ko buddiwul ci guddi gi soo asamaan si tee mën naa nëb daal di jóg jël jën wi daal di ñëw ci gannaaw néeg bi daal di defar jën wi daal koy butti daal jël nag xorom def ci defar ko ba nga xam ne daal du nëb suba daal di bàyyi na uti ca perma daal ñëw tëdd ba ñu tëddee ba jàppantee ki nelaw yàlla def yàlla def ndogal ci suba gi mu am ku jaar ci wetu néeg bi gis néeg bi mel ni day tàkk mu daal di fëgg ndogal ndogal ndogal ndogal daal di wuyu mu ne ko ah, jógal seet sa ginnaaw néeg bi mel na ni mi ngi tàkk de ndogal daal di riir yaayam it dégg baatu tàkk bi daal di riir baay bi dékku ci néegam ñoom ñëpp xam nga wax waxi suba day dégg suba teel waxam day dégg maanaam boo dee waxtu ndànk rek waa kër yëpp dañ koy dégg ndax lépp day def keram ñu daal di daw nag wut si ci ginnaaw néeg bi fii yaay ji doon buddee jën wi dañu dékkee ndekkete jën wi dafa wannoon ñetti doñ ji ndekete jamaa bi nag mooy leer mel ni sawar ba mel ni day taal néeg ñett donj jamaa yooyu nag benn donj bu ci nekk mën nga jàpp ne jar na lu fukki million benn donj bi ndogal daal di yaay ji ak baay bi ñu daal di jël nag jamaa bi daal di cornet daal ne lii de ba suba ak léegi ca yaay ji dogal moom itam wax naa leen ne yaa ji day fóot ñu ko indil am póot léegi nag dafa mel ni sax xam nañ ko ci póot ba dootul demati kër kenn di jëli ay yére dañ koy ku am ay yére yooyu fóot rek dañ koy jox mu am na xale boo xam ne yenu na ëmbëb yére daal di ko indil nag yaay ji muy yaayu ndogal fekk ko ci fóotukaay bi yaayu ndogal daal di imbi nag daal di tekki nag ëmb bi bi mu ko tekkee nekk te jaaye ji nga xam ne moom lañ saraxoon bàyyi faal ba caaye jaa ngi ci póot mi yaay ji yëkkati caaye ji daal di geesu seen yaay ji daal ne ko yaay mu ne ko mu ne ko foo jëlee tuba ji mu ne ko ah tuba ji mi la am dañ ma koy fóotloo mu daw ak caaye ji daal di làng foos bi fekk ca enveloppe muy juróom benn fukki junni yakob bàjjanam joxoon ne tuuti fi ñuy waxee nag ak comb combal yaay ji di wax ne xale bi ku la jox póot mi mu naa ko dañ ma ko jox sama baay ma ko jox ne ma naa ko indi nga fóotal ko ko te wax ko ñaata la fi ñuy waxee loolu dajante ak baay bi dugg si baay bi rëbb la ab dànn la baay bi itam ndekete daje naa ga ci àll ba fetal na ko kiwal ga rëcc na waaye mbuus ga moom jot na ci te déggoon na doom ji wax ne kiwal ga moo yóbbuwoon mbuusam mu gàddoo fa nag mbuus ga dikk daal dugg seeg fetal gi ne ah ndogal ndogal ne ko naam baay mu ne ko sa mbuus ga nga doon wax ndogal daal di songu baay bi daal di gis mbuus gi daal di jël mbuus gi. daal di koy ubbi fekk ca téeméer junni yi nga xam ne moom la ko jaayam joxoon dara manqué wu ci ñu ne ah, lii nag dëgg-dëgg xéewal la ki nga xam ne itam mooy jabari ndogal ji nga xam ne moo doon jënd cox ak a jaay cox ndekete ci jënd beeg jaay bi avancé na ci ba léegi moom itam ku am nag lu mel libre cox mbaa kilo cox da nga koy jaay si moom mu de ko dajale ba mat nag fukki kilo mbaa ñaar fukki kilo mu jaay ko jaay ko cox am ko ko jaay si nag juróomi def ko cib saako. dikk na ko cox bi dama koy jaay mu waxaaleeg moom juboo sotti cox bi ambulog ba génn muy ambulog ba nga xam ne moom la jox jaay la woon ca jaaykatu cox ba ndekete boo baag léegi si cox cox baa ngi wëneelu ci biir mu ni kon ambulog bi génn si na ci cox bi waaye caay ja saraxoon yalwaankat ba wala màjjaalkat ba it si na te juróom benn fukki junni ya nekkoon waaye ndekete géwal ga itam ca nga xam ne moo yóbboon téeméer junni ya ko nijaayam joxoon géwal ga itam téeméer junni yi ak saak ba delloosi na ndogal nag ak yaay ji ak baay bi ñu ngi ci ëtt bi nag di xalaat nag jëfi yàlla ndekete yàlla moo mën a wàcc waaye yàlla moo mën a feeñal ndax lii lu ci nekk demoon na bañ yaakaar ne yaakaar jeex na ci waaye bi ko yàlla naree niit lenn lu nekk am na fu mu ko jaarale li feeñal caaye yaay ji daa mujjoon di fóotaan indi nañ koom póot xool na póot mi caay ja nekk ca ndekete xaalis baa ngi ca caay ja kañ joxoon caay ja xamu ko woon fi caay jaar yëpp xamuñu woon ne caay ja xaalis ngi ci ba fóot war cee am ñu indil ko kii fóotaan te kii fóotaan doomam moom moom xaalis ki nga xam ne itam mooy jox bi dama ruuroon ko ci am di doon enveloppe bi ñeent fukki junni ko jox bi moom itam xamuñu woon ni jox bi xaalis a ngi ci gis ñoon enveloppe bi kon cox boobu jënd cox bi tax na indi nañu cox bi jaayaat ko ambaloog ba génn si na till ga nekkoon ci àll bi itam moom dem na ba tàmmoon na mbuus gi ci loos wi du ko tee for di ko to du ko fo ndax tàmm na ko ndax loo tàmm rek da ngay dem ba miin ko ca njëlbeen ba muy soog a dugg ci loos wi doon na def lu ko la lu ko tiital mu daw waaye mujj nag tàmm na mbuus gi ba loolu dàqatu ko góor gi nga xam ne mooy bàyyu dogal te dara indiwu ko lu dul mën a jam tànc di ko dànn fetal na till gi ba jam na till gi donte deewu ca it mbuus ga moom ruggeeku na maanaam dellu si na mu des nag seen ñetti donj yooyu nga xam ne moo ñetti donj yi jamaa yi a la or a xaalis jamaa laa la wax te jamaa lu seer la ñu daal di nag ndox daal ndogal daal di wax baayam ne ko bàyyi léegi nag lii loo ci xalaat baay bi ne ko nañu ànd dem ci ki nga xam ne moo fi commerçant bu mag bi nga xam ne mboolem dëkk bi xaaj bi moo ko moom kër goo fi gis ka fa nekk moo la luye wala moo la ko abal ba ci kër gii nga gis ma nekk fi moo ma ko abal moom rek moo fi am xaalis bu mën a jënd jamaa nañu yóbbu benn donj bi denc ñaar yi suñu demee wan ko ko laaj ko ba xam lu mu ci man mu ne ko aja baay bi daal di jël na ñett doon yi jël ñaar yi denc jël benn bi daal di ànd ak ndogal ñu dikk nag ci ki nga xam ne mooy borom xaalis bi bi ñu dikkee daal di nuyoog moom xamal ko ne ko dañoo am jamaa buy jaay mu ne jamaa ñu ne ko waaw mu ne ana jamaa bi baay bi daal di génne jamaa bi benn donj bi daal di koy wan ne ko mi ngi nii mu ne ko ah bii moom da xam naa njëkkam ñaata ngeen koy jaayee baay bi ne ko ah, dama miinul njaayum jamaa te it wóonu ma ko fi kenn ba di ko laaj lu mu war a jar wante yow laay laaj nga seet yow loo ci man nga wax ma ko su dee dañ koy xaaj ñoo ko mu ne ah, xaaj kay lay mën a doon waaye lépp mënu ma koo jënd xaaj bi daal mën nañ cee waxaale ñu xaaj donj bi xaaj bi li ma ci mën a jox am naa fukki kër ci dëkk bi mën naa la kon nga seet kër yi bu la ci neex ba muy fukk. mën naa la jox itam fukki fasi naari góor nga seet itam fas yi nga xam ne am naa ko nga xool yi la ci neex woone bii ba muy ba muy fukk am naa géttug nag mën naa cee jox fukki yëkk soo bëggee ak fukki nag yu jigéen ñu di ay saya saya xam ngeen nag su matee dëgg-dëgg saya lay tudd ngeen xale yi xam ngeen saya dangay ngay dégg ñu ne ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki baykat yi ma daan bay nag waaye nag ku fi ñàkk waaye da nga dégg suñu mbokki béykat di wax ne yëkk mbondi nagu jigéen saye sàkket xand jaasi kili biti mbaam ngu naa ba séq saa wax yëkk mbondi nagu jigéen saye sàkket xand jaasi kili biti mbaam ngu naa ba séq saa dangaa lu ci nekk su matee ba mat na war a doon rek yëkk dëgg dëgg su matee mbondi lay tudd nagu jigéen dëgg dëgg bu rëyee ba àgg ci bu rëyaay dëgg dëgg say lay tudd aw sàkket bu matee aw sàkket dëgg dëgg xand lay tudd jaasi dëgg dëgg dëgg su matee la war a doon kili biti mbaam itam ngonk mënut a passé ngonaa ba séqi lu mu réeré saa <laughs> moo tax ngay dégg baykat yi di kañu di wax ne yëkk mboon di nagu jigéen sa ee sàkkit xand jaasi kili biti mbaam ngonaa ba séq kon mu ne ko naa jox fukki saye muy nagu jigéen yu mag ak fukki yëkk jox la itam fukki kuuy xar jox la fukki sikket yu mat maanaam ci gàttal daal giirug jur gu ma jox la ci fukk kër yi itam ma wan la kër yi ma am nga xool bu la ci neex ñu lim ba muy fukk ma jox la ko tegal la ci xaalis fukki million te it bëgg ngeen dimbale ma ndax gannaaw man lii sama liggéey la te yàlla dogal na ngeen dëkk ci dëkk bi te yow mii góor gi wax dëgg yàlla boo seetloo xam ne ba ma la joxee kër gi ak léegi lu yëngu ma ko abaloon kon tey su ma soxlaa ji lii nga mën maa dimbale ci xaaju sa doon wi nga ma woon kër googee sax nga xam ne ca nga nekk su ngeen ko bëggee mën naa bokk ci kër yi ngay moom. baay bi daal ne ñoo kenn ko ma ñëw daal di woo ndogal ñu bokk làqu mu ne ko ah ndax jar na koom jaru bu dee su ko wax ndax yekkub yàlla yekkub yàlla nu mu mel da koy jar. li ci nekk nag mooy dama ko mënul wax ne ko ayca ndax dëgg la sama doom nga déggal nga ma lool waaye nag xel du doy ndax li ma wax dëgg nga ko mu ne ko dégg naa ko bàyyi mu ne ko lu ci sa mu ne ko loo ci wax nangu naa bàyyi bi ne ko akasa nan dem ñu laaj ñu dikk daal di ànd ak borom xaaj bi te mooy commerçant bi ni ñu ko mën a wooyee na ko jubóo nañu commerçant bi daal di wàññi nag fukki million teg seen loxo daal di tànn nag loolu yi moo waxoon lu ci nekk mu fukki fasi naari góor fukki yëkk fukki sayer fukki euh, kuuy fukki euh, euh, nag lu nekk daal ci gàttal lam ko ci diggoon lam ko waxoon mu jox ko ne ko nan dugg dëkk bi nag kër ga ngeen dëkk soo ko bëggee baay bi na ko xam nañ na fa ba noppi kon bëgg naa ko ndax xam na xam nañ ma fa jàpp nañ ne waale moom kër gi kon bëgg naa mu ne kon ay ca ñu tàmbali ci kër googu mu na nañ yeneen juróom-ñeenti kër ci dëkk ba ànd ak moom ci dëkk bi na ko kër gi na xool nga ko ndogal dugg xool baay bi ne ko doo ci xam mu ne ko baax na mu ne ko bind ko mu fukk ba kër yi mat mu yëkkati fukki million jox ko ñu jël nag benn doon ji boobu xaaj ko jël xaaj bi nag jox ko nag commerçant bi ndax xaaj bi lañ digee ndogal dellu si ànd ak baayam ñëw ci kër gi dikk nag na yaay ji léegi man kat yàlla dogal na alal ji teew na sama loxo waaye man bérooguma te it sama baay bérooguma te dafa am lu ma santoon loolu laa ko bëgg a ñaan te bëgg nga jàppale ma ci muy ñii takkoon jëlee leen dëkk ba li nga xam ne moo di guta yàlla dogal sama baay noonu ma naa leen delloo ma amoon kersak delloo leen ma bëgg nga ñaanal ma sama baay bu fekkee ne dëkk bii tey borom dëkk bi moo doon bañ ku fi am ñetti jabar ñu bàyyi ma ma wax ak dëkk bi ndax fi ne xam naa lu ma ko wax mu nangul ma ko donte du article su fekkee sama baay ci boppam nag moo bañ ma bañ moo bañ ma am ñetti jabar ma delloo jigéen ñëpp waaye nag kenn koy naa ko delloo ak teraanga naa ko teral teraanga ji ca war ànd ak moom ba seeni i bokk wax ak seen bokk jox leen seen teraanga soogaan na ñoom ñëw daal di ànd ak ndey ji ñëw ci baay bi toog baay bi toog ndey ji jël kàddu wax ba yeggal baay bi ne ko du man maa bañ ci moom ñetti soxna waaye damaa bëggoon natt bu mat waaye borom dëkk bi itam moo jubawutoon ci dëkk bi nag ku fi am ñetti soxna waaye leer na ma nag ne bis ni ki tey suñ demee wax ko ko dana ànd ak ñun kon ñetti soxna jël nga ci yóbbu kenn sooy ba nga bàyyi leen bu tàkku saanee may nañ leen bu tàkku saanee kenn ku nekk wax la seen dëkk ak turu ndeyam ak turu baayam man mi di sa baay laataa ñuy ñëw ma dem bu suba ak xamal leen na leen nag ndogal la ma yebal nga jox may teraanga ma yóbbul leen. mu jubóog baayam ci loolu kenn ku ci nekk ndogal daal di wut téeméer junni ci ñetti jabar yi boole ko ak baayam ne ko bàyyi kon bu subaa nga ànd ak ñoom santal ma seen i bokk gërëmal ma leen joxal ma leen téeméer junni yi kenn ku ci nekk ndax bàyyi takk def ma dara bàyyam na ko jubóo nañu ñu fanaan asamaan set jigéen ñi kontaan nañu ndax ñoom ñëpp ñu noon tas lañu ñaareel ba it ci kiitaange waa yàlla dogal na lu lépp dañ na léegi nag baay bi solu na jigéen ñi pare nañu ñu ne ñu ngay dem dëkk ba nga xam ne fala jigéen jóge woon te moo di guta fi ñuy demee rek ñetti borom kër ya jiitle muy ñett ñi waxoon ne ndogal dañ lay seet si ñu dugg si daal di far nuyoo jàmm sant ñu toog ci diggante bi nag santante gërëmante ndogal na daal di xamal nag ñooñu itam li seen li baayam doon wut si ca dëkk ba ak xamal leen na leen nag teraanga boo ko yónnee far borom ñëw kon jaratul yónnee ñooñu daal di am nag cant xamuñu woon la fa jiitu woon coono ba xamuñu ko ba tey xamuñu ko ñu taral leen ñu xam leen nag kenn ko nekk la nga doon wax ne am nañ yaakaar ci yow yaakaar ji tasut seen yaakaar tasut ci ndogal xam nañ ne ko am ngor la waaye ko am diina la ñu santante gërëmante daal fay maye nag li tubaab di wax feet gu mag te moo di am ndaje moo xam ne waa dëkk bi yëpp la boobu nag di benn bis la ci kàmbaar di bis bu mag muy bis bu am nattu teggi ko bis bu am nattu teggi ko nattu ndogal keroog ba mu jeexee mbooleem lu lu dëkk kàmbaar xam nga nattu bi jeex na ndax mbégte ma agsi na ba sa buntu loolu moo nekkoon histoire bi nga xam ne moo xewoon diggante kambaar ak dëkk bii nga xam ne moo di Gouta te mu nekkoon dale woon na ci góor gi ma gàmmu doomam ji nga xam ne moo di waali te mu joon tudd ndogal muy histoire boo xam ne taxoon ñu indi leen ko it moo deen xamal nag ne wut doomu aadama sañ na ko waaye yàlla na mooy joxe waaye wut nag te amoo bu mu tax nga décroisé ndax suma jàmbaar ji kenn dutul fàtte muy Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké daan na faral di wax ne ngóor wut am ne résultat wut moom li mu ci xam rek ne mooy am kon kuy wutati ku ne waroo dàcc te it ama ngi ci gën a wut ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na su ma xamoon foo xam ne. bànneex fa nekk te coono nekku fa du ma fa su ma ko xamoon sax du ma fa dem ndax wax na ne su xamoon foo xam ne bànneex fa nekk te amul coono ne xamu ko fenn te su xamoon it du fa dem kon coono da jiitu bànneex kon lii moo nekkoon ndogal ñu gërëm nag ñi nga xam ne ñu àndoon ak ñoom.